ñun ba ñu dëkkee falox ak tey ñi nga xam ne ñooy suñuy kilifa fàttewuñu falox c'est-à-dire la ñuy def nag mënutu matale benn yoon actuellement nag euh, lu bëree bëri bëri def nañ ko waaye nag aussi am na lu des li des tey li nga xam ne moo ci gën nekk priorité mooy ndox problème mu ndox am nañu ko parce que suñu jigéen ñi chaque jour bu ñu xëyee ci teen yi la ñuy yendu presque ci la ñuy fanaan robinet yi doyul te bëgg nañu ñu yokk ko ci ni mu gën a gaawee beneen bi ci tegu mooy agresseurs yi actuellement commencé nañu dugg falox ci jamono bu nekk xale yi daanaka nelawatuñu ñu ngi ci terrain bi di jëflante ak ñoom te loolu wóorul te tamit aussi jaaduwul parce que nit du fajal boppam maanaam civil du fajal boppam. jamono yee passé sax wax nañu woon ne naa ànd ak ñoom dem gendarmerie pour ñu def fa déclaration wane ne bu ñu mënoon bu fekkee ne yoon maye na ko Euh, bu ñu toogee ba 2 heures du matin képp kuñ fi gisati te xamuñu looy dox ñu fexe ba xam li ngay dox lan la te loolu aussi mën na indi catastrophe loolu maa ngi koy préparé mais defaguma ko kon léegi ay lamp mbedd soxla nañu ko lamp deer yi nga xamante nii am na ci dëkk bi que ñun suñu courant bi mooy courant privé la nekkul courant boo xamante nii courant Senelec bi la kon ñun li ñuy arrangé ci ay lamp mooy lamp deer yi nga xamante ni am na ci dëkk bi yitte woo nañ ko comme ni ko ñëpp yitte woo yaakaar naa ni sax daanaka ñun ñoo gën a nekk priorité am na xam ne ci yeneen quartier yi ñoom mën nañoo am beneen façon lampe bu bokkut ak lampadaire yi kon lampadaire yi ñun ñun ñoo gën a nekk priorité pour ñu am ko loolu suñ suñ suñ yitte la